fidèle internaute de Dakar Instant asalaamaaleykum mbégteeg bànneex la ñuy am di ànd ak yéen saa su ne rawatina jamono gi ñuy wax ak yéen ñuy euh, doomu jàngoro bi euh, di coronavirus waaye itam ñu mën ko tuddee li nga xamante ne mooy Covid 19 doon loo xamante ne jamono gi kenn dootu ko présenté ci Sénégal ndax gis nañ jàngoro gi nga xamante ne ko bàyyi na ko fi ba tax nag lépp loo xamante ne dafa yem ci wàllu activité lépp taxaw kenn dematul kenn dikkatul mu nekk loo xamante ne lu mel ne àdduna wërngal képp sax la ñuy wax waaye dafa mujjante fi nga xamante ni mooy Sénégal comme niñ koy gisee nee naa ko chaque matin à partir de 10 heures ki nga xamante ne moom lañ dégg wàllum santé du monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ah, day def situation boo xamante ne day wax ci cas yi fan lañ toll ak li nga xam ne mooy wàllum Covid 19 ci état bu mu toll ci mim réew waaye itam ñu nemmeeku ci li nga xamante ni Dakar instant nee naa ko heure bu ñëwee daf leen di baaxee lépp loo xamante ne actualité la waaye itam dañ ci tàmm actualité yi nga xamante ne ñu gën a fës cest des actualités les plus marquantes moo tax tey jii ñu andi leen benn petit récap boo xamante ne dañ leen di defal li nga xamante ne mooy la situation waaye itam dañuy xool région bu nekk li nga xamante ne moo di doomu jàngoro gi nan la fa nekkee ak yàqu-yàqu yi nga xamante ne def na ko ci mim réew buñ ko waxee nag xale dem ci li nga xamante dañ ko wàññi bu dee li nga xamante ne moo jëm ci yeneen genre xeetu euh, liggéey yi tamit mën nañ ne dañ ko arrêté suñu sukkandikoo ju ñu ci bëri dañoo obligé tëj seen atelier ñu bari itam bari nañ ciy morom boo seetee jaaykatu lekk ñi nga xam ne euh, xam ne moom lañ daan jëfandikoo dañ ko mujjee wàññi bu ko défé rek ak couvre-feu bi ak état d'urgence bi ñu mëna ñibbi à l'heure comme ni ko son excellence monsieur Macky Sall diglé waaye dañuy ñëw ci li nga xamanténi moy situation tey ji ci altine gi li nga xamanténi moy mooy ak Covid 19 am ñu fàttaliwaat leen rek comme ni ñu koy wax la saa la répétition et les pédagogiques li nga xamanténi moy nombre de cas yi nga xamné mom lañ jot am global moy cas total yi buñ koy sox mi ngi toll ci 291 cas donc mëna nañ jàpp ni depuis le 2 mars ba tey cas yi mu ngi toll ci cent 291 cas mu dem mu def euh, un mois et quelques waaye ma ñu nemmeeku ci ci 295 pour.

yow mi tané nga duñ la bayé nga ñibbi dañ lay isolé waat benn côté xolaat doomu jangoro bi ndax jeexna sa yaram waaw bu jeexé sa yaram ñu la bayé nga mëna ñibbi 178 amo tané ñu gis ni li nga xamante moy euh, nombre euh, de malades yi nga xam ne ñoo ci tané ñoo upp fouf ñi nga xam ñoo sous traitement parce que ñi nek sous traitement ñu ngi tollu ci 110 donc 110 mo nek sous traitement 178 à tane donc mën nañ nombre euh, de malades yi nga xam ne ñoo tane ñoo ëpp fuuf ñi nga xam ñoy nombre de malades yi nek sous traitement ñuy saluer ñi nga xamante ni ñooy ñoo mooy mooy ñoo euh, brave médecin parce que seen wóolute ak seen jàmbaar te gis nañu leen saa su ne nelawuñu benn yoon 24 heures sur 24 ñi ngi veillé ci li nga xam ne mooy état wu patient yi waaye itam ñu ci li nga xam ni

dégravage yi nga xamante ne def na ko fa waaye itam ak fële ci Espagne itam ak fépp foo xamante ne rek nee naa la dëkk la li nga xamante ni mooy coronavirus a ah, def na fa ay jéego yoo xamante ne naatable nañ kenn naatable wu ko waaye tam mu doon loo xamante ne jéggi na dayoo donc Sénégal ñu jàpp ni am na ñaari décès kenn ki kenn dootu ko ki présenté muy Pape Diouf moom mi nga xamante ni moo nekkoon euh, moom mi nga xamante ni moo fi nekkoon fële ci olympique bu Marseille waaye itam mu nekkoon journaliste boo xamante ne day yëngu ci li nga xamante ne mooy wàllu tàggat yaram ñuy ñaan suñu borom xaaree ko àjjana keneen ko di benn ab soxna boo xamante ne dafa yoroon ak restaurant comme ni ko ay a waxee dafa feebaroon amee jabet ak leneen ak leneen dem fële nga xamante ne mooy France di faju suñu borom def nag mu jëlee fa doomu jàngoro bi di coronavirus donc ñoom ay mbokkam ñu ngi xamal ni ak kooku soxna soosu ah, ñu gënoon ko xam ci Ami Soble doomu jàngoro bi di coronavirus daf ko mujjee doggali ñuy ñaan yàlla fañ jëm gën a leen fa mu jugee waaye itam ci cas de itam am na li nga xamante ni mooy cas bu ñu évacué ndaxte moom kat dafa sonnoon loolu ñu daal di koy mujj évacuer fële nga xamante ne mooy ca France waaye bañ ko évacuer naka ni bërki démb lañ ñu xamal ne dafa mujjee ñàkk bakkanam ñu gis ni li nga xamante ne mooy doomu jàngoro bi mi koy def ci euh, mim réew métti na lool waaye ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy wàllum région yi dañ koy door rek nga xamante ni mooy Dakar Dakar Dakar Ouest nag amoon nañ 62 cas yoo xamante ne jamono gii ñi ngi nekk sous traitement am na ñoo xam ne tane nañ ba ak euh, Dakar Sud Dakar Sud tamit am nañ ci li nga xam ne mooy cinquante cas Touba Touba ñu am à 27 cas Touba nak ak jamono yi ñu génn amone dañu demoon ba sax amatu ñu won benn cas waye barki demb lañ fa némé nemmeeku benn cas ñu juppee ko cas communautaire dañuy taxaw touti nak ci point bobu cas communautaire bu ñu nee cas communautaire ñu bari dañu yakarne ne bu ñu nee communautaire on parle du commune bu ñu parlee bu ñu waxee communautaire ñi naan dañu wax suñu walum communauté ñi naan suñu gox amul corona ñi naan fa ma dëkk amul corona mbir mi du loolu cas communautaire soko déggé dafa am cas communautaire am cas contact suivi. cas contact suivi mooy cas bi mooy yow mi nga xam ne da ame doomu jàngoro bi kilo ko wal xam nañ ko

fayda nga tok sa biir kër ndax en général loolu mooy handicap communautaire yooyu nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku te suñu xoolee fii à Dakar famille machallah ils sont assez nombreux donc dug bi guen bi dafa bari da ngay lal objet bi nga pare keneen ki ñew lal sans pour autant se désinfecter donc yooyu yëpp ay xétu geste la yo xamantene subitement pour nga atteindre li nga xamantene moy cas communautaire bi c'est très facile té ñu bari bàyyi wu ñu ci xel motax cas communautaire dafa nek lo xamantene lu am solo la ci nek euh, euh, espace public yi nga xamantene lu ci melni marché yi lu ci melni voie yo xamantene day bari nit li nga xamantene mbolo daf fay dajee lu ëpp bis bu fa cas communautaire amee rek day nekk loo xamante ne day jéggi dayoo ndaxte wàllante bi day bariwaat ba tax ki nga xamante ne mooy jiitu réew mi bërki démboo gis nañ bi nga xamante ne mooy les euh, tonnes saagu ceeb yooyu nga xamante ne ñi ngi ko mi ngi ko war a distribuer ànd ci ñi nga xamante ne mooy waa armée bu ko defee ñu jox ko ñi nga xamante ne ñoo ko yelloo naam sax ñi ngi dégg ci proclamation bi ngi naan même situation bi fekk bu décanté wul sax

couvre-feu lañ déggante ba xamné à partir de 20h ñëpp fatu waye bu ñu nee confinement général kenn dootul génn sa biir kër donc yeen ñi nga xamante ne mooy internet yi yéen ñi nga xamante ne yéen a suivre yeen ñi nga xamante ne yéen sénégalais yéen yéen a mën a ci combat bi bu ko défé ñu bolé suñu doole ndax ka communautaire doon na lu jéggi dayoo naka ni Touba demoon nañ sax ba ñu naan coronavirus bi jeex na amatul zéro cas nak ni barki démb ñu némé ko fa am nañ un cas communautaire. Il faut que ni nga aussi pareil parce que ñu xamal ne dafa jugé Touba sét ay donc cas communautaire la communautaire transmission manière à une autre C'est tellement rapide que c'est compliqué bu cas communautaire waaye ba tey itam Louga tamit amna 25 cas bu ñu fàttali ko Louga premier cas bi cas communautaire parce que ñeneen waji waji fu mu daan dem dafa bari waji ni mu daan jëflantel dafa bari nam ñu ne waji dugg ak génnam dafa bari won lool ba sax sax ñu ngi xamal ne yaayam biko suku jur la ko njëkk a donc ñu ngi ñu ngi doon wax ni aussi tamit waji ji képp koo xamante rek dafa daan sëkk ak yow dara wala soit nga xam ko wala dara sax dañ leen mettre en quarantaine bu ko defé ñu mëna a ndax doomu jangal mi ngi seen yaram waaw wala déet ba tey rek ci walum ak cas communautaire la ba tey Mbour tamit nemmeeku nañ fa aussi tamit am nañ fa 13 cas Mbour am nañ fa 13 cas mu nekk loo xamante ne ñu ngi ñu koy xam le Pikine aussi am nañ 11 cas Guédiawaye aussi pareil euh, Thiès tamit am nañ 10 cas Goudira 8 itam am nañ 7 cas Yëmbal am nañ 6 cas

xeet yooyu ñooy andi li nga xam ne mooy cas communautaire fële ca Saint-Louis itam am na ñeenti ka cas Popenguine am na ñetti cas Mbao am na ñetti cas Ziguinchor am na ka cas Diamniadio aussi tamit am na ñaari ka Oussouye am na benn cas Richard Toll benn cas Fatick benn cas na amagul dara ci ka

seconde mu nek itam lo xamante jamono gi ya ah, jarna baye xel bu baax na les mères de famille les pères de famille mais surtout les grandes familles ñom ñi nga xamante en général kër yi day bari nit gis nañ fi Sénégal bu ñu waxee ñu ne pays de la teranga mën nañ ne teranga boobu nag buñ ko topé à la fin daf ñuy mujjee lor tey jii da ngay gis ni yow naam ngay ne bul nuyu so ñu nga ne du su ko nuyul kat daf may mere du question lool mais itam da nga koy aar aar sa bopp ci noonu la ñuy li nga xamante moy cas contact yi cas contact yi nag mi ngi toll ci 146 cas depuis 2 mars

dootoo duggati fi nga xamante ne mooy Sénégal dem koy arrêté donc ba tax ki nga xamante ne sax mooy euh, Amadou Ba ministre des affaires étrangères daal di koy féetlu ne ko képp koo xamante ne da nga faatu doomu Sénégalais bu faatu ci coronavirus fa nga nekk fa lañ lay denc dañuy daal di jënd li nga xamante ni mooy sa bàmmeel ndax éviter rek li nga xamante ne mooy cas importé yi gën a duggaat ndax bu duggee day gën a metti naam ñu ngi jooy cas communautaire amaguñ ci solution donc importé yi mën nañ en ce moment ñu ngi toll ci quatre vingt cinq cas te ko arrêté carrément cas communautaire nga kaa mais ñu gis ñu commencé am doole bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax fi nga xamantene moy ci même rew bu ñu xolé rek tay ji am nañ 11 cas 11 cas mën nañ japp ni 10 cas contact suivi la donc ñom mën nañ xam xam nañ ñan ñoo leen ko wal mais un contact bi nga xamantene mo moom dess moy muy un cas transmission communautaire kenn xamul kan la mu doon lo xamantene rek dégg na dayo lol lol lol lol ba tax rek ñuy gëna fagaru war rek bu baax way tam dañu ci li nga xamantene moy mooy taux bi buñu ñu xoolee ci nombre de femmes yi nga xamante ne pourcentage bi mi ngi toll ci 53 virgule 85 pour cent chez les femmes waaye itam ñu gis ne bu baax a baax coronavirus bi place bi mu am ci jigéen ñi moo ëpp foofu ci góor ñi bu ñu xoolee chez les hommes ñu ngi am 46 virgule 15 pour cent boo xoolee ñoom ñaar am na quelques pourcentages yoo xam ne moo nekk ndax 53 virgule 85 et 46 virgule 15 pour cent donc aussi les femmes parce que nous sommes tellement fragiles que ba jigen moy génn jigéen mooy dem marché jigen moy def li jigen moy def laa donc jigen ni mën nañ japp ni ci gàttal dañuy faral di jigen dafa sop donc nu ñu gën moytu aussi tam di gëna ar xalé yi bu baaxa baaxa baaxa baax suñu xolé tam effectif des cas confirmés tam don na loo xamante depuis le depuis le 2 mars passé mon nek un mois et quelques évolutions des cas confirmés nous gis né des fois blast bi blanche bi da fay ascendant comme descendant des fois yegg di wacc buñu xolé demb 2 cas tay ci 11 cas semaine passée ñu ngi 6 cas 7 jek jek yékat né 15 mu nek lo xamanteni mu nañ né blanche bi nekul blanche bu

ñu buñ ko bu ñu euh, dëgg bi buñ ko raay nañ ko wax donc comme niñ koy waxee saa su ne rek fagaru moo gën faju coronavirus la dafay reye ba tax na képp koo xamante ne rek comme ni ñu koy waxee waaye itam ñu fàttali leen benn point bu am solo chaque deux heures de temps dafa baax ngeen di naan lu tàng ndaxte kat bi dafay baax des fois mu am tuuti chaleur boo xamante ne sa yaram dafay mën a décomposer waat chaleur bi di génne et tout bu ko defee rek ñu gën a farataalaat li nga xamante ne mooy doomu jàngoro bii di coronavirus parce que doon na ennemi pur boo xamante ne kenn xamu ko kenn gisu ko moom moo ñuy gis bu ñu jugee mu jug bu ñu toogee mu jug